la borom njurul daal dañoo daal di am nañu benn cabine médical ca Nord Foire wetu kër Wally Ballago Seck jokkool ak ñoom ci 77 180 19 93 bu dee ca Mbour nag da ngay jokkoo ak ñoom ci 76 611 33 60 Touba 78 578 68 40. jërë ngeen jëf mbokk yéen toxnat Allô Sénégal gannaaw bañ leen a rafet lu nu ngeen di toppee suñu chaîne bi ngeen informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew délégation bu yeewi ka nga xamante ne moom moo di xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacke ñoom nag waxtaan nañu tolluwaayu réew mi waaye tamit kii di Ousmane Sonko ma nga xamante ne ñu nga ko nëbb jant bi ci noonu nag mu mel ni waxtaan wa amoon na solo lool waaye tamit a yenn ci ay révélation daal dina ci génn bokk na rek ci message ba nga xamante ne moom Serigne Mountakha daal na koy jagleel rek a di Ousmane Sonko waaye tamit beneen kumpa goo xamante ni sax daanaka ko daal di addu rek mu daal di doon loo xamante ni sax ñoom groupe Yewwi Askan Wi wate woon foofu duñu ko dévoiler mukk bu ñu sukkandikoo ca ka nga xamante ne moom moo jiite woon bii la délégation di Habib mu ngay addu rek ba nga xamante ne kii di sëñ Mountakha daal dina koy jagleel rek Ousmane Sonko waaye tamit leneen loo xamante ni sax daanaka ñoom mënuñu koo wax rek mu daal di doon ab message boo xamante ne moom Serigne Mountakha daal dina cay ci àddu rek mu mel ni bu ñu sukkandiku ci ñoom seen teewaay foofa ca Touba waxtaan nañu lu yaatu bokk na ci tolluwaayu réew mi waaye tamit seen leader gi nga xamante ni sax daanaka ñu nga ko nëbb jant bi. bus rapide transit yi nga xamante ne ni ki tey la ñu daal di amal essai bu njëkk ba loolu nag gannaaw mu daal di doon ab projet boo xamante ne dafay gën a ñoŋal dem beek dikk bi ni ki tey daal nañu amal essai bu njëkk ba ngir rek mu daal di mën a fonctionnel di daw rek ci biir Ndakaaru yile bi bis nag gis nañu ak jafe-jafe nga xamante ni sax daanaka a lii di manifestation yi andi woon na ko rek mu mel ni teewul daal di nañu rek gën a taxawal bi les projets ba ni ki tey ñu daal di amal rek lancement bu njëkk bi mu doon BRT ñu naan ko bus rapide transit bu ñu jógee ci loolu ñu daal di wax ci Pape Alé Niang mu mel ni nag moom ba ñu ko jàppee ba bàyyi ko léegi bàyyiwul la la nga xamante ni rek moom moo di combat ba mu doon mëne gannaaw nag ba nga xamante ne moom ci liberté provisoire la daal di nekk rek ñu bàyyi woon ko ndax état de santé am ba nga xamante ni sax daanaka dafa tàmbale woon rek dégradé wu ak grève de la fin ba mu daal di amaloon rek waaye moom daal nay defu poste rek di wax sax matériel am ya nga xamante ne daal nañ koy jël bokk na ci ay téléphone am ci rek la nga xamante ne moom moo di tablette am ordinateur ak la nga xamante ne moom moo di passeport am mu mel ni nag moom daal di nay wax sax naan ñii di gouvernement bi ba léegi rek ñu ngi ci ay tànkam ngir rek ah, teg ko loxo waaye nag kii di Mimi Touré ah, gannaaw ba nga xamante ne ah, seeti woon na sax ka nga xamante ne moom moo di Pape Alé Niang moom mu ngay sàkku rek ñu bàyyi ko ba noppi jox ko passeport am ngir mu daal di mën a génn réew mi rek faju ji ndax état de santé am ba léegi rek daanaka dafa daal di tey xel lool waaye moom Pape Alé Niang a bañu ci dara mu ngay gën a wéy rek combat ba nga xamante ne daal na koy tàmbali kii di Birame Souleye Diop daal nay rek janook taskatu xabaar yi yooyu nag ci ña nga xamante ni sax jàpp nañ ne ak kii di Ousmane Sonko du bokk ci yile élection waaye moom nag mu ngay wax rek di gën a rassuré ña nga xamante ne ñoom ñoo di patriote ya di wax rek naan kii di Ousmane Sonko moom mooy doon seenub candidat amuñu sax beneen option moom mooy samp ndëndëm rek ci yile élection présidentielle yu 2024 jamono jooju nag fekk na moom Ousmane Sonko mu nga rek ca fa nga xamante ne moom moo di l'hôpital ak grève de la fin ba nga xamante ne nga koy gagné gannaaw ba nga xamante xamante ne de santé ma mayatu ko mu daal di continuer waaye moom teewul mu ngay rek gën a amal grève de la faim gannaaw ba nga xamante ni sax mu ngay manifester rek jàpp ga nga xamante ne jàpp nañ ko ko rek te teguñu ko ci yoon ñeneen ñuy wëyal seen grève de la fin muy kii di Samba Njim ñu gën ko xam ci Hannibal ak Cheikh Bara Ndiaye ñoom nag ñu nekk réanimation waaye nag gannaaw xiifal ga nga xamante ne ñu nga koy amal a ñu nga rek boole ci bañ bépp soin boo xamante ni rek. nag fas yéene nañ leen koo defal mu mel nag ñoom seen nekkin ca fa nga xamante ne moom moo di l'hôpital ak seen état de santé daal nay tiital ñu bëri rek gannaaw ba nga xamante ne yamatuñu sax ci rek xiifal waaye dañu daal di lànk rek bépp soin boo xamante ni rek l'hôpital ba pare na ngir defal leen ko coowal Juan Branco mu mel ni ba léegi rek ñii di yoon ñu ngay topp ña nga xamante ne daanaka laale nañ ca bokk na rek ci duggam ci réew mek la nga xamante ni rek mu nga ko doon planifié mu mel ni nag nag gannaaw yenn ci ay maire yoo xamante ne daal nañ leen teg loxo rek daal nañuy jàppaate keneen loolu nag ci ka nga xamante ni sax moom moo di jëwriñ ji ñu dénk kaaraange réew mi kaddu ya mu yëkkati woon muy wax sax naan lii di coowal Juan Branco képp ku ci taqe mbaa nga laale ci rek yoon dina la teg loxo ci leneen la ñuy wax mariage bu Alioune Seck nekk frère ci Wally Ballago sek moom nag mu doon takk sax doomu aw Baba Thiam di Khadija mu doon mariage bu gis nañu nag ña nga xamante ne ñoo teewoon rek ci bile bés daal di rek honoré kii di euh, Seydina Alioune bokk na tamit ci teewaayu Wally Ballago Seck ma nga xamante ni sax moom moo doon joué rek bile réception teewaayu ña nga xamante ne moom moo di famille ba ñëpp rek daal di ñëw ci bis bi waaye nag gis nañu koppar yu bëri yi nga xamante ne daal nañ koy def rek ci bile xew bokk na rek ci ki nga xamante ne moom moo di Sala Sow yëkkati rek lu toll ci cinquante millions de francs fa waaye tamit Astou Mbaye kenn demul mu des ah, dix millions la daal di yëkkati rek def ci bis bi premier njëkk ba tamit yëkkati lu toll ci ñaar fukki millions ah, mu mel ni bi la xew daal di ni rek daal nañ ko a def mu mel ni nag gis nañu teewaayu mbokkam ak i xaritam nañu daal def rek ci bile bés mu daal doon réception bu neex lool waaye nag mu mel ni am na rek ab audio boo xamante ne mu ngay daal di fuité rek a di marraine ba di Salo Sow ak kàddu ya nga xamante ne mu nga ko doon yëkkati. yëkkati rek jëmal ko ci Awa Baba Thiam mu daal di doon lu doy waar mu koy rek yekk ka nga xamante ne moom moo di Awa Baba Thiam waaye teewul nag ak bile mariage la muy neex-neex yenn ci ay révélation rek daal di na cay génn bokk na ci la nga xamante ni rek kii di Amzo Zouzou daal di na koy def rek mu mel ni ña nga xamante ni sax ñoom ñoo di ñooñ ci Wally Ballago Seck ñu jàpp ne sax ne dafay daal di rek yàq der gannaaw ba nga xamante ne kii di Alioune Seck daal di nay rek takk ka nga xamante ne moom moo di. doomu Awa Baba Thiam ñu daal di wax ci ah, baptême bu Ndeye Marie ah, bu série Karma ah, image moom la ñu gis noonu rek mu daal di koy célébrer rek mu doon baptême bu neex lool moom ak kii di borom këram gis nañu image nga xamante ne daal nañ koy partager rek gannaaw ñuy accueillir rek seen doom ji xanaa rek di ko ñaanal mu dund te barkeel la Bass Thioung mu nga woon ca soirée bu Wally Ballago Seck daal di rek joxe a prestation bu neex lool ci rek bi le soirée. kii di Wally Ballago Seck nag eh, kontaan lool ci teewaayu Bass Thioung a la nga xamante ne eh, moom moo di soirée ma eh, ñu ànd rek daal di dund bi la a Cheikh Ahmed Cissé gannaaw mu teew ca soirée bu Sidi Diop mu mel ni amoon na ab altercation rek ak ña nga xamante ni sax ñoom ñoo lànkoon rek mu yéeg ca kaw seen ba waaye nag kii di Sidi Diop ba mu gisee li ni mel rek dafa wax nañ ko bàyyi mu yëkk wala mu dal di arrêté woy rek loolu daal di nekk geste bu rafet boo xamante ne moom Sidi Diop Cheikh Ahmed daal di ñëw ci soirée ma Omaru grand boubou brodé ba mu sol mu ngay choqué la toile gannaaw ba nga xamante ni sax ñu ca bëri ñu nga jàpp ne mbubu jigéen la waaye moom nag mu nga ko daal di sol rek publier ay photo waaye yile publication nag dégg na ci lu ne gannaaw ba nga xamante ne ñu ca bëri ñu nga jàpp ne col ka ga mu sol rafetul dara dafa daal di rek nduróog tissu jigéen loolu waaye moom Omaru nag daw ca dara daal ba noppi publier. ci kontam Kumba Gawla Seck dellusiwaat na ci moment yu difficile yi nga xamante ne daal na koy na rek ci jamono ja nga xamante ni na lool mu jàpp ne moom deewoon na sax waaye suñu borom moom moo naka noonu la daal di fent rek ab wëy duppee ko sant rek la ñuy gis mu daal di nekk en toute complicité ak kii di Mia Guissé ñoom ñaari artistes yi a dox seen diggante rek. gis nañu euh, photo yu rafet ya nga xamante ne euh, daal nañ koy partagé ci seen compte euh, Kya Aidara l'ex femme de Pape Cheikh Diallo moom la ñuy gis noonu rek mu daal di raaroon lool ci réseaux sociaux yi waaye nag gis nañu récemment photo ya nga xamante ne daal dina koy partagé ci a ay compte am wax ci anniversaire bu Fatel la femme de Ngaka a gis nañu nag bile anniversaire moom Ngaka Blindé na mu réitéré rek son amour ci ka nga xamante ne moom moo a Fatel a daal di rek doon lu rafet mu daal di koy def rek ak message ba nga xamante ne daal na ko koy jagleel wax ci la tiktokeuse Fa Aidara gis nañu récemment photo ya nga xamante ne daal di na koy partagé rek ci comptam mu daal di doon de très belle photo moom Fa Aidara mu daal di partagé rek ci flowsam Oumou Sow mu nekkoon fecckat bu ñu ràññee bu baax a baax gis nañu look ba nga xamante ne daal di na koy adopté rek mu daal di choqué la gannaaw nag mu daal di def lu ne commentaire yi ak look ba nga xamante ne moom Oumou Sow daal dina koy adopté ñu daal di wax ci cité mixta ak soirée ba nga xamante ne moom moo fa amoon mu mel nag police ñoom ñoo daal di tas sax bile soirée gannaaw ba nga xamante ni sax teg nañ ca loxo lu toll ci fukki nit ñu jàpp ne sax ne ay góor jigéen lañ rek nekkoon na ci bile soirée mu amoon rek foofu ci cité mixta beneenub cité la ñu jëm muy cité kër góor gi loolu nag ab artiste sax la ñuy wax moom moo doon jéem a faat rek ak waajuram bu góor gannaaw nag mu daal di jëlu paaka rek jam ko ko plus de peur que de mal la ñuy wax ndax kii di waajuram bu góor ba mujj nañ koo sauver sax waaye moom ja sax daal nañ koy teg loxo rek ca jëf jooju mu naroon a def rek ngir faat kii di papam kii nag soxna la mu daal di jëloon ab téléphone am rek jox ko ab waay ngir mu daal di koy am lum ca waaye nag kii di waay jamu joxoon téléphone ba nag dafa daal di dugg rek ca galerie ba daal di partager message intime yoo xamante ne mu nga nekkoon ca téléphone ndaw si ba noppi rek a ko chantage mu daal di doon mbir mu doy waar boo xamante rek moom waa ji loolu la daal di def rek jël vidéo soxna si ak i photom partagé ko rek ci téléphone am ba noppi rek di ko woo téléphone di ko chantage ngir tëdd ak moom coowal mama kundul ku nekk dégg na ko mooy soxna soosu ñu waxoon sax ne dañ ko daal a kidnappé rek mu dara amu ca li rek moom soxna si moom moo ko planifié woon rek ak ñeneen gannaaw ba nga xamante ni sax moom jëkkëram la daal di rek bëggoon a taqal ci ab crime ci noonu nag la daal di rek simuler ab daal di rek disparaître ne dañ ko daal di kidnappé rek ci noonu nag gannaaw mu daal di janook ñii di enquêteurs yàq seen xarañteef daal nañu rek découvrir ne li ni mel moom moo ko daal di planifié woon rek ak ñeneen ñoo xamante ni sax daanaka ñu nga doon rek laaj jëkkër ji xaalis bu takku ngir rek daal di koy taqal ci ab crime boo xamante ni sax daanaka defu ko a wax xa ci Amadou Ba moom mooy waa ja nga xamante ne moom moo jote woon ak Adama Niang ñoom ñaar nag xeex bu métti la ñu daal di xeex waaye nag kii di Amadou Ba daf ko daal di mujj jam rek moom Adama Niang mu ñàkk bakkanam ñi di sapeur pompier nag gannaaw ñu daal ñëw rek fa nga xamante ne fa ba daal di am rek ñu doon jéem a suufe sax waa ji moom nag dafa mujj ñàkk bakkanam waaye kii na ko teg loxo ab incendie moom moo am ca marché central bu Touba loolu nag daanaka lu toll ci fukki cantine daal dinay lakk ba jeex mu daal di doon incendie bu métti lool xew rek foofa ca marché central bu Touba jeexale wàllub tàggat yaram Premier League bi mu mel ni doomu Sénégal bi di Pape Makhtar Sarr daal dinay rek dugal bitam bu njëkk ci Premier League ak clubam bi di Tottenham loolu nag gannaaw match ba doxoon seen diggante ak Manchester United moom Pape bu baax ba nga xamante ne daal na koy def rek mottale na ko ab bii bu rëy boo xamante ni sax daanaka mën nañu wax ne moom bokk na ci bii nga xamante moo jox victoire ñii di Tottenham Sofiane Diop daal dinay ci équipe nationale bu Sénégal moom nag gannaaw ba nga xamante ni sax ñu nga doon laam lame rek mu daal di dem ca France wala sax ca Maroc mu mel ni moom daal nay rek décidé ñëw jouer fii ci Sénégal mbokk yi safoon doon ñu teewlu lii lañ di leen ñaanal di leen chaîne bi talaal close notification bañ a rate dara suñu information jërë ngeen jëf